internet sunugal 24 point net asalaamaaleykum pël bu rafet mu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen baal àq te di leen baalu àq nee naa ne lépp ci koor gi la ndogu champion tey nag ñu ngi fii ci géejawaay seet si ki nga xamante ne mooy guy gi tey mooy def ndogu champion fas yéene koo jox waa koñam ay am di jàmmam ak ñëpp ku ci xaj rek tey yaa nga ca and ak libaas sama caméraman bu ñaawul bi di jaajafalaat nag suñu mbokku internet nee naa kenn du yéen danga may topp ko nag guy gee ngi nii guy gi 95 waaw guy gi 95 ana 90 ak 91 ak yow. pël bu rafet. siyaar naa la yaa jàmm. bi nga bi nga jullee si yonent bi. sant waa hymne national bi sant yàlla jull ci yonent bi sant sama ñaari waajur du nuyu waa Sénégal du nuy 12 000 yëpp ñaan Sénégal yàlla fi jàmm yàgg te wér du nuyu waa Malika gi ma dëkk sama base sama lépp du nuyu waa Guédiawaye du nuyu fii nga ma fekk muy sama kër patron sama kër lépp nga xam ne lu ma làmb ginnaaw yàlla moo tax merci di la nuyu yow. neexul man tamit su ma sante yàlla julli si yonent bi maa ngi ne jàkkaarloog guy gi 95 guy gi tey ñu ñëw fekk euh, ñu waa guy gi lii mooy lan <laughs> tey ñu ñëw fekk la fii ci ndogu sa turandoo sax lañ mën a wax sa turandoo la mais 95 bi la moo tax nga yokk ko si guy gi rek guy gi bu ñu bëreeg Ama la ñëw la jógee entraînement quoi daal ñëw macha allah moom yàlla doo ko may lamb ñi fi nekk ñëpp moo ci loolu yàlla may na mu ñëw xool-xool ay une deux trois mu daal di jékki-jékki daan ni non kii mooy numéro quatre-vingt-quinze. yàlla dogal tamit bon rëccu ma ko mu jig ma ba tey média bi xam nga gaa yëpp jàpp ci macha allah daal kii du sama patron sama mag la ndax dem nañ ba séq loo xamante ne ngemb li may ngemboo mu ngi fi néegam samay gàllaaj sama lépp combat fii laay déparé muy jël ay alal jël xaalis bu bëri dugg ci àll bi di ma dolli ay ay ñaan kon du ay turandoo quoi sa mag la sama lépp la géejawaay gi moom moo ma fi bàyyi. kan moo tax kan moo tax nga dugg ci làmb. moom làmb nag affaire de genre affaire génération la dañu nekk Malika. moom mooy sa idole ci làmb. mooy sama idole ci làmb mais dañu nekk Malika nekk sama gars yi ñoom général Malika armée di leen ñaanal yàlla may leen ndam di ñaanal armée yàlla na ko yàlla may ndam ci kaw caat ñu ngi liggéey nekk fa gars yi ñoom général armée di xëyandoo xam nga affaire de affaire de jeune quoi dem ba brise bi dugg ñu ñu ni pourquoi pas mën a nekk mbër loolu moo ñu mais mooy sama idole ci làmb. combat nga bëre. def naa six combat. ñaata victoire quatre victoire deux défaites. défaite yi kan ak kan. Boy Jules. Boy Jules bu Fallaye. beneen keneen ki moom kaay fàtte ko sax solution xam naa ndoog xam. bii am nga combat wala amagoo combat. <laughs> sa xarit laay bëreel kay. kan mooy sama xarit. sa xarit laay bëreel. kan <laughs> <laughs> ah pël am naa combat pël koy bëreel Mbengue Faye pël koy bëreel Mbengue Faye mun ma ah xam naa ne Mbengue. waaw mais garaawul yàlla na. ah waaw mais garaawul Mbengue Faye laay bëreel le 22 juin. le 22 juin waaw di ñaan yàlla suturaal mañ ci ndam rek incha allah rabbi. maanaam yow sa combat presque ñëw na. pare naa barki alxuraan yow am na loo xam teg nga ci sa bët ñun dañuy liggéey ànd ak gars yi nekk ci ginnaaw guy gi di liggéey matin midi soir ànd ak sama gars yi fii waa Malika benn baraak di waajal ah, fi mu toll nii sama combat dañuy xaw a dëgg bal bi ndax caat lañ bëgg libéré ko mu féete boor kom mbaytin euh, général def na différence caat la ñuy xaar mu ñëw armé def différence après moo ñëw dàbbali ñu ngi liggéey ñu ngi suñu ruq bi di liggéey lu métti mbéy gay moom du problème quoi wax dëgg yàlla. ay waay kii Saar Mbana la Saar Mbana. Saar Mbana. Saar Mbana ay waay Saar Mbana waay. waaw am na. fële fële dugal bopp yokk. Eh, waaw waaw waaw alhamdulilah jërëjëf loolu da ngeen doon ba pare. xaw ma dara. waaw waaw waaw waaw waaw. ma ngeen xam bu mu rënd maa ngi lay gi comme d'habitude rek woo bu baax sax. maa maa ngi maa ngi maa ngi julli maa ngi def lépp liy koor gi di laaj maa ngi koy def. waaw nag laaj nga ma nag lu am importance parce que Pape guy gi dafa nekk loo xamante ni mën a guy gi euh, dërëm la woon ba million ñu seq lu bari si àddina seq teraanga dem ba fi mu ne nekkatul sax ay kii wala deret moo nekk sama digganteek moom tey man naa ne sama taaw bu doon góor la moom xam na ni moom lay tudd. ñu def loo xamante ni si kaw suuf ñu bëri nag mënuñoo comprendre mën a guy gi bokk nañ lu ne ci àddina lu ne ba tey yàlla suñu borom may ko teraangaam bi ma nekk sama kër mu ne ma doo fa nekk da ngay ñëw fii neef kon xama nga kooku desee la dara lépp lu muy def man lay jiital lépp lu muy wax man lay jiital mën naa ne tey man namm ma dara namm ma dara waaw maa ngi sant yàlla lépp li war si moom mu ngi koy def si man man lépp li nga xam ne ni muy war man daal li may ñaan sénégalais nañu sénégalais ñaanal ma ne moom yàlla lafal ñu ca dàqal ñu seytaane. soo toogee dégg guy gi si yenn coow yi yenn détails yi nu lay def. no daf may tuuse daf may métti ndax parce que ku laal olof da naan ku laal sa mbokk rek mu métti la te xam naa man guy gi li mu doon bu baax parce que des fois nit ñi wax wax yoo xam ne du am benn siiw wala du am lenn lu leen ci leer. te Sénégal nag moom mel noonu parce que Olof Ndiaye dana ku boot bu ki xaj baw boo jiitoo nag moom dina bëri ñu nekk sa ginnaaw sa kanam di la faqatal moo tax mu demee noonu waaw. Euh, tey jii nii guy gi diggante guy gi ak Saaka Joor lan nga ma ci mun a wax ndax coow li bëri na wax ji bëri na boo laajee guy gi mu a jotewuñ dara boo laajee Saaka Joor mu ne jotewuñ dara te jii nii diggante guy gi ak Saaka Joor lan nga ñu si mun a wax te guy gi fu euh, mu toog danaan Saaka Joor mooy idolam Saaka Joor moo tax mu dugg ci bëri. waaw tamit laaj laaj nga ma tamit lu ma gën a neexaat parce que yàlla dafa dogal man Sa Cadior sax laa njëkk a xam ñu newoon marché njaaram defandoo lu ne ñu màggandoo nekkandoo ay morom Sa Cadior ñun ñoo ko dugal ci làmb nu ñoo ko dugal ci làmb mooy ba mu yegg niveau bi mu yeggoon tey bu ñëwee yàlla boole waat mu may ànd ak guy gi benn mais diggante Sa Cadior guy gi amul ñagas ñagas nit ñi ñooy ne di wax rek man. am na ñagas ñagas parce que ñaar ñu doon ànd. waaw dégganteetuñ seetanteetuñ kon am na ñagas ñagas. waaw xanaa kay da ngeen dul wax li nekk ci biir. waaw xam nga seytaan loolu am jaay naan seytaan waxul dëgg may yàq na xel mais ñi ne si ginnaaw di yàq rek moo tax mu dem mais ñagas ñagas saaka doro guy gi amul parce que. tey des fois ñoom dinañu gisante wala di déggante huis clos boo xam ne man mii sax wala ak keneen ak keneen duñ ko fekkee non bul wax loolu man déggoo li ma la ñu ngi déggante. déggante wu parce que waaye. ñoom ñaar déggante wu. koor gi xam nga bëgg ma wax loolu wala. da ngaa woor damaa woor te si weeru koor lañ ne sëwru ramadan li ma la si mun a wax li nga xamante ni moo mun a nekk dëgg saaka ka guy gi lënd ak mardi la. man lu leer laa la wa bés doxul seen digg bés doxul seen digg. waaw léegi nag comme que yàlla def na yow. saa ka nga njëkk a xam. guy gi topp si te ñoom ñaar ñëpp say nit lañ da ngaa siy kax ñoom jàmm léegi dama lay ñaan ci bar barki weeru góor bi nga jéem see dox tànku jàmm ñu mel nañ melaatoon parce que ñoom ñaar fu mu toll nii neexut dëgg du romb ay nopp waaw mais dëgg la mais déggoo li ma la Sa Cadior guy gi damay déggante Sa Cadior guy gi du ndax guy gi ñoo dëkk saa kajoor espagne bi mu nekk ak ñam fa nekkal ñëpp samay nit ñoo fowandoo ñun ñëpp damay déngante ak ñoom di doxtaan ak ñoom saa kajoor ak guy gi li ma la wax jàpp ko amul diggante bu amul ñagas-ñagas mais bu ñu leen bàyyi woon ñoom ñaar rek ñu nekk ak seen xel ak seen conscience tranquille barki yàlla duñ toog sax bag naan yaa ngi ciy dégg ay coow wala wax yi saw di mais na dafa bëri ñuy yàq mais yàlla dina leeral lépp guy gi guy gi euh, Balla Gaye 2 waaw guy gi Balla Gaye 2 ñoo bokk géejawaay dafa leer ñoo bokk géejawaay lépp ñu gars di wax rek kenn mënul dem bàyyi sa morom parce que wax benn ngelaw seydaanee fi jaaroon rek kenn ku si nekk sa xol sa sa xol tàng nga waxee dënn mais ñun ñëpp ku ñu xool xam ne ñun ñëpp ay famille lañ. léegi jubóo non ñun ñëpp jàmm ñëpp jubóo nañ. jubóo nañ fi waaye ñëpp a ngi ci jàmm. di waajal nag. comme ma waxi waajal waajal waxaguñ waxi Lac de Guiers nañ dem ci. wala jubóo nañ. billaay jubóo nañ. ñoo ngi déggante di gisante di waxtaan ñu ngi ci jàmm. ngeen di waajal. dañuy waaye suñu combat bi Lac de Guiers 2 contre Boy Niang moo di ñaanal Lac de Guiers 2 mu jaan Boy Niang jël bu set wecc ci barke weeru koor bi wallaay adim sama xol laa ko tibbee parce que lamb ji dafa ne foo xam ne daa am fu rëy fi mu Ama Baldé saa yu ñu ko laajee danaan Boy moo dàq bëre moo dàq xeex moo ëpp doole yooyu. Ama Baldé dafa waane rek yor làmmiñam di wax moom am na lu mu war a lijjanti lii mu yor làmmiñam bi di wax moom bu de ay Boy Niang moo dàq bëre moom moom téeméer lijjanti boppam. ne ko moom Ama Baldé baa xam yor làmmiñam bii di wax ne dina bëre guy gi de ama troisième édition bi dina leen te guy gi lu mu ko defoon 2012 lu gën a raw loolu la koy def ama nag na ne si dëkk bi yor làmmiñam bi fu ne mu wax dina mais bés bu ñu ko jàppee ama bés bu ñu la jàppee billaay xaw ma sëll nga xaw ma di nga mujjee nekk mbote maa la wax li mais moom nee na dootul bëre gi. mooy ay wax ju guy gi li muy wax ay conseil la ko def. mooy wax ju yàqu la rek wax ju yàqu la. yaa ngi dégg moo ko fi njëkkee toog ci saalam ñu wax mu ubbee ay wax ju yàqu la mais bés bu xaas bi tegee ci table wallaay Ama dina bëree guy gi te buñ bëree guy gi moom Pikine yëpp dañ ko mën Ama dañ ko mën duñ moromam dañ ko mën bés bu ñu jàppante waatee mu xam ne dañ ko mën barki yàlla li mu lu leer laa naka nga gisee seen mbëri année balance ci mel ni ay Sa xam naa ne ñi année balance nañ dina bëri waaw waaw waaw waaw surtout sax loolu loolu moom baaxul ci mbër moom baaxul ci mbër mais yàlla bëri na sutura lépp loo gis rek bu bu amee rek daa fekk mu lu gën dañ ciy sant yàlla di waajal déwén moom dañuy ñëw ak lu tàng jër ak ndag waa aseg naageeg këmi koo gën jógeeg jaxaay ak ñëpp géejuwaay gi ñëpp ñëw waa waaw ñëpp daal tamit nga may ma tuddi ñu gërëm sañ xaas moom gannaaw yàlla lépp lu fi am moom la jàpp na ci ndogu bi jox nañu xaas bu bari xam nga ñu defar ci tamit teraanga bu bëri ñu ngi koy ñaanal vraiment yàlla na ko yàlla suturaal jàppale ko quoi parce que grand bu baax la yow suñu nit nga ci kër gi nga bokk yow yàlla jàppalal suturaal la ak sa caméraman bu baax bii nga xam ne moom saa boo leen ñëw yéen ay ànd libaas waaw di ko bëggee tamit yéen ñëpp moom fi ne ñun ñëpp a faana parce que ñun ñëpp ay léegi nitu làmb lañ ñoo bokk aar bi munuñ lenn lu dul séqante jàmm rek loolu moo ciy am quoi di kontaan tamit yow it biñ la wooye ma la wooyee wax la ko da ngaa bàyyi lépp li nga jàppoon nga ñëw xam nga maa la ci ñaanal quoi yàlla jàppale la sa carrière li nga ci bëgg yaa nga xam suñu borom defal la ko ci nga yegg au sommet quoi ba ñëpp xam nga gën a bu baax. merci beaucoup mbaa chéri guy gi nii taxaw maa ngi lay ziar. yaa ngi jongo <laughs> merci. mbaa yaa ngi woo. waaw maa ngi woo kay. yaa <laughs> tey nag euh, nga nekk ak champion. nga nekk ak champion macha allah. muy guy gi dëkk biir Géejawaay tey mu woote li nga xamante ni mooy ndogu nga nekk soxnaam te lan ngay wax bi nga gisee mbooloo bi ñëpp di dugg di génn. kontaan nga wala kontaan kontaan naa ci waaw kontaan naa ci. nekkax nekkax mbër nekkax yomb na. ah yomb na yombul na yombul mais gisuma ci lu koy gérer ah moo ah, maa ngi koy gérer bu baax a baax. maa ngi koy gérer waaw maa ngi koy gérer. des fois des fois bu amee combat su koy waajal nooy def. Ah, amee combat moom xam nga rek da ngay yàlla rek. mais moom stress bi dina kii bi nga am stress de moom mais da ngay gëm yàlla rek ànd ak yàlla daal. dangay toog jaaxle. fekk combat bi jeexu daal doo nekk si jàmm. doo si jàmm doo mën lekk doo mën dara. toog mooy da ngay julli di ñaan loo xam def. waaw ah, damay julli di ñaan moom wax dëgg fa yàlla damay julli di ñaan. mooy julli di ñaan moom di ko ñaanal bu baax yàlla may ko ndam. des fois dañuy amee contrat. yenn mois yu sori comme ay 6 mois yooyu ñu nekk ak seen jabar des fois dañuy toog ay ay 1 mois 2 mois duñ gis seen jabar yaa ngi dund genre kii yooyu noonu. <laughs> lépp ci biir <laughs> lépp daal ak ci biir. loo mën a wax si say borom kër. ah nit ku baax la daal nit ku yërëm jigéen surtout loolu ku yërëm jigéen mbedd mi fu mu dem lu mu romb rek lu mu romb yaakaar nañ si man la jekk da koy jënd indaale bëggul nga xiif bëggul nga mar waaw. Hmm? man moo jógee ko. waaw moo jógee. maanaam lépp nice. lépp jàmm moom wax dëgg fa yàlla. la baay féete la mag. waaw féete na ma baay féete na ma lépp bañ na ko damay wax sa papa moom moom sama papa la wax dëgg fa yàlla buñ ma waxee dama naan buñ ma waxee Seydou jëkkër kese ma ne ko nekkuma ak sama jëkkër sama papa laa nekkal wax dëgg fa yàlla. la waaw loolu la taxaw man de wax dëgg fa yàlla. man. maa ngi koy ñaan heure bu yàlla may ko gudd fan ak wér may ko wërsëg gu mu yore njabootam loolu daal laa koy ñaan bu baax. ah <laughs> laaj ko ko. <laughs> ah fiir moom xam nga ni jigéen ñëpp ko def mais danga koy yemale rek dangay xool ñi ngay fiire ñi nga dul fiire mais fiir moom ñëpp ko def. def. <laughs> moom du def loolu. jàpp na si ah, waaw loolu moom du ko def moom maanaam moom wóor na ma moom chaque jour mu wax ma ko sax neen du ko ah. def ah, moom yow tëj na sama xel bu baax a baax waaw <laughs> xanaa nga xaw koo bàyyi xel rek waaye <laughs> waaye loolu la wax <laughs> waaw merci beaucoup lay